asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina njabootu sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké noo ngi am mbégte di leen nuyu fii ci këram gii nga xam ne fi la nekkoon daan fi jaamu yàlla daan fi liggéeyal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ci ndigalul sëriñ Sidi Mbacké moom Cheikh Abdoul mi nga xam ne tey jii mooy jëwriñu kër sëriñ Abdoul Ahad ñi di ko ñaanal yàlla sun boroom yàggal ko fi lool te dolli ak wéram te defal ko mbooleem rakkam yi nga xam ne ñoo toog fekk jataay bi ñu fas yéene yëkkate ay kàddu nag ci ndigalul kilifa gi di sëriñ Sidi ak rakkam yëpp fab kàddu googu jox ko sëriñ Amsatu moom Cheikh Abdou Lahad Mbacké mu toog nii ànd ak bokki taalibe yi ak njabootu Cheikh Abdou Lahad ndigal li fu mu jëm mooy gën a bennale waaye gën a lëkkale mbooleem njabootu Cheikh Abdou Lahad gi ne ci biir réew mi rawatina bitim réew waaye nag ñu tànn ci ña xam ne ñoo féete Italie ci teewaayu sëriñ Xaadim Mbay ak bokkam yi mu bokkal teew fii yëpp sëriñ bi xam la ne incha allahu rabbi am na kàddu yoo xam ne ci sëriñ Amsatu lay bàyyi ko waaye képp ku ko dégg nga xam ne ndigalul sëriñ Sidi la ak fu taalibeb Cheikh Abdoul Ahad mën a nekk kon ñun ñëpp ñu maase déglu sëriñ Amsatu moom Cheikh Abdoul Ahad bokk julli wax ji du gudd ju gàtt lay doon damay tàmbale ubbil sëñ Mourtala mu àggale li sabab jotaay bi mooy ndigal lu jóge ci sëñ Sidi jaar si njabootu Sëriñ Abdou Lahad gépp yoroon fee daje tey xaj na xat-xatu jamono yi ak teq-teq yi bari ba ñëpp teewuñu waaye fardu kifaaya la day mel ni bu kenn teewee rek mën naa teewale ñëpp noonu la ko sëñ Moustapha waxe noonu la ko sëñ naa ba ci sëñ ji kon nag maa ngi wax ci turu Oustaz ak Cheikh Abdou Lahad ci woote bi nga xam ni ndigal la muy benn le taalibe sëñ Abdou yi ngir sëñ Abdou ci boppam moom la ñuy la le bâtisseur tabaxkat bu ñuy tabaxkat nag dañuy jàpp ne tabax ay bâtiment rek la lu mel ni ay daaree kaamil ak kër sëñ Tuubaa ak université waaye wees na foofu tabax nit la doon def kër yi càqali ko woon yëpp bi sëñ Abdou Lahad ñëwee da leen dajale boole leen ñuy benn nit ñi wàccoon sariyaat ak ñàkkuk taalibe itam sëñ Abdou Lahad leen def ñu def leen ay jullit def leen ay taalibe te sëñ Tuubaa li mu bëggoon mooy ku ko dajaleel mbooloom ndax ëllëg yonenteeg yëpp dañuy demonte maa la ëpp mbooloo maa la ëpp mbooloo nu bëgg nag kon képp ku yaakaar sëñ Abdou ak foo ko mën a yaakaare ndax nun ay jëwriñ rek lañ mbooloo mi sëñ Abdou Lahad ko moom nun ay jëwriñ rek lañ te tool bi benn la muy tool sëñ Abdou Lahad kër gi genn la muy kër sëñ Abdou xañ na kenn ku ne daal na ci nekk rek beru fa waaye bu ñu génnee dañuy daj ñun ñëpp ci ëtt bi kon nag dañoo bëgg ñun ñëpp ñu daj ci ëtt bi ngir lëggéeyal nam daan lëggéeyal Sëñ Tuubaa cig jub cig maandu cig dëggu cig fulla ak bañ a dugg si yoon newut te loo am nga sédd ci Sëñ Tuubaa wala nga jox ko lépp dese dese féete ak sëñ bi ndax loolu la fi nekke woon li amoon lépp da koo def ci Sëñ Tuubaa bàyyi na ko sëñ Tuubaa mm-hmm. te nu bàyyi sëñ Tuubaa itam ñàkkuñ dara kon nag ku mel noonu ku mu jëwri ne ku la soxate ku la iñaane ku la bañ du la mënal dara kon nag ñun ñëpp nañ doon say ndigal lii sëñ bi joxe ñu maas ci kenn ku ci nekk am nga ay jëwrin yoo xam ne ay taalibe lañ yoo xam ne yow la ñuy mm-hmm. kon kàddu gi maa ngi koy joxale ñëpp kër sëñ Moustapha kër sëñ Sidi kër sëñ Cheikhouna kër sëñ Mourtada ñoom sëñ Abo ñoom ñëpp kenn ku ne nga jox ndigal sa jëwrin mu yëg ko ànd ak ñi ci liggéey bi yu liggéey ñu doon benn ngir jëmale kër sëñ Abdou Lahad kanam kon maa ngi jox sëñ Mourtada Magal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi bu baax ñu jiital ci sunu nuyoo sëriñ Sidi Cheikh di jëriñ kër gi ni nga ko waxee mm-hmm. ak ay rakkam Moustapha sëñ Seex na ak sëñ Jili Seex Xadi Ba ak Saliou sëñ mm-hmm. Saliou mm-hmm. ba ci ñun ñi ñëpp ak suñu rakk benn lañu dëgg la mosuñoo tàqale ko ndax xëccoowuñ dara ñu fi bàyyil du jeex suñ tubaab dañu bàyyil ak doon ak taalibe loolu la fi bàyyil nag waxtu wu ñu daawar di yees ak taalibe dañ koy yeesal ñun taalibe yi nañ fedd liwaat suñu pas-pas ci liggéeyal sëriñ Tuubaa la ko sunu waajur daan def kenn mënu ko woon jamono kon kenn wuru ñoo mën ci jamono ji te kenn ëpp ñu mbooloo daje amul rek waaye taxali ko am waaye daje bi nag daf ñoo war kon waxtu wu jot <clears throat> weer wala ñaari weer war nañu daje daayira yi daayira yëpp daayira Seex laa la fee ma ne di Abidjan de ñoom ñëpp benn lañ soree nañ sax ay quartier waaye fexe nañ bañ nekk benn daayira ndax sëñ Mourou dem na fa barki dem ba mu demee loolu gis. Italie gi it <clears throat> ci jamonoom. ki doon ëpp mbooloo am. dem naa ba kenn ci waa Sëñ Fallou dama xamal ne ma daayira Sëñ Abdoulaye di ne fi ñoo ëpp doole foofu daayira yu ne loolee nag lañu ko moyal xam nañ ko nañ nekk fa war a nekk te jiital Sëñ Abdoulaye ci suñu kanam ndigal yi di ñëw dugg ci kër doomi Sëriñ Tuubaa yi kenn wuruñ jamono. war nañ cee dëkk suñ bokk yu baax yi ngi nii barki dem lañ màggal yëkkati nañ addee yoo xamante ne yëpp xam nañ ni kenn joxagu ci yoon wi loolu la war war naa tax sax ñun ñu takkaat suñu laxsaay <coughs> xëy na ni sëñ Fallou toppe woon sëñ mën a ustaa sëñ toppe ko ko bu sëñ Fallou mii demee ñun génération bi yëpp ñu ci bari xamuñ sëñ Fallou sëñ Abdoulaye lañ xam soppe yi nag moo ëpp bi yi foofu waaye bu ñu organisé woon lu ñu mënul amut na ko daan waxee ne aw say dañ koy takk ba man foo ko ne cirib man koo jëriñoo waaye genn mat nag neex na koo dama sama moroom kenn ku ne yaa ngi jaar ci barab waaye xol yi moom fu ñu daje day mel ni ñoo bokk fanaan ci benn nekk kenn ku ne sa moom yaa ngi ci xool si yëpp laat kilifa gii nag yàlla moo ko weefal rek tegul kenn lu mën bëgg naa dem yóbbaale ñëpp waaye ñu itam nañ fu teg tànkam ñu teg fa suñu tànk gis bu ndigal ñëwatee nii ñu def nii ñu defe ko kenn ku ne la la ca war nga sasu ca sasukat sañ nañ ko def ci ci liggéey bi sëñ bi la daawul sase waaye nag <clears throat> sa soññee la am na ñoo xam ne boo leen sasul la ñu war a joxe kon nag yéen ñi dëkk Italie bu ngeen demee loolu liggéey baa ngi door a tàmbali dëkk bu ci ne ak fu ci ne tam am daayira sëñ bi def leen délégation dem fa soññ leen addi yëpp di benn ñun sax dañoo war di yëkkat suñu addiya di ko ci def. magal gaa ngi ñëw kon nag léegi suñu daje bi bu fekkee nar naa am njëriñ ñu koy xam ci magal gi. nañ fas yéene magal magal ko xam ne dana gàccal magal yi fi weesoon yëpp. loolu daal mooy yoon wi ndax bari woon nañu yoon wi te it kenn ku ne yóbbu nañ la ci daara yar la fa. ñun ñii ñëpp amu ci kenn koo xam ne bokk sa morom koo nekk. Mm-hmm. te rek nga fa doon jànge kon bu dajee bu ñu nekkee benn rek. laa am lu bëgg te bu amee lu bëgg ñun am lu bëgg. waaw asalaamaaleykum. fas yéene yëkkati ay kàddu yu néew ci jëmale ko ci sama mbokki taalibe yi ma bokkal kër Cheikh Abdoulaye muy ci fii ci réew mi ak bitim réew ah, muy kàddu yoo xam ne tamit kàddu yu soññee rek lay doon ah, ndax kenn ko ne xam na ni ah, ah kër Cheikh Abdoulaye ni ko sama kilifa yi waxe fu kër yegg rekk yegg na fa waaye nag lii dafa munta ñàkk saa su ne dañoo war di daje di gise di waxtaan di sottantee xalaat loolu mooy mooy jëmale liggéey bi kanam ci kenn ku ne xam na ni sii euh, Sidi mi nekk ci bopp bi li ko war lépp mi ngi koy def njabootu Cheikh Abdou Lahad gi tamit ñoom ñëpp kenn ku ci ne la nga séq moom yaa ngi koy def ni nga ko ni mu waree ci digganteem ak euh, Cheikh Abdou Lahad ak ak digganteem ak Sëñ Tuubaa kon ñun taalibe yi man sama soññee ci sama diggante ak sama mbokk taalibe yi ci la jëm dama bëgg ñu fas yéenee takkuwaat laxasaayiwaat jaajuwaat sëriñ bi li ci jublu mooy fépp daayira bu Cheikh Abdou nekk ak fépp taaliba mën a nekk yaakaar Cheikh laay Lahad nañ gën a booloowaat takkuwaat boole seen bopp masaa ko wax ci Italie ni leen kër sëriñ Abdou Lahad kenn la sëriñ Sidi dafa nekk ci bopp bi waaye sëriñ Sidi ba ci ka ci gën a fett ndaw lépp njabootu sëriñ Abdou Lahad lañ ca ñoom ñëpp koo ci gis rek mel na gis nga Cheikh Abdou Lahad sama soññee nag mooy nii sëñ bi diglee bëgg ñu àndandi e, waaj wàll gi nga xamante ni si amoon nañu xalaat te doon ci dox muy dajale mbooleem turandoo yi sëñ Abdou Lahad Mbàkke yi ca dox ci ab jéego boo xamante ni si ba màggali sëñ Abdou Lahad bi jàllee ba nëgë ni ñu ngi ciy dox mooy fu sëñ Abdou Lahad Mbàkke nekk ca nu ko ko rek e, ñi ngi lay woo ci liggéey boobu ndax yàlla dogal na da dajaloo nañ ba mu doon ab lim boo xam si ay téeméer la te it boobaak léegi weer wu dee wu nekk ñu ngi dajaloo fi barab ngir réunion ngir bu bisub Sëñ Abdou Lahad bi ñëwee kenn bannu cee man fédération boobu ñuy tudd nag eh, ñun ñi nga xamante ni si ñooy turandooy Sëriñ Abdou Lahad nan fexe ba bu nu kenn gën a gën a gën a gën a gën a nosu waaw fépp fu mu nekk moo xam juróom ngeen fa moo xam fukk ngeen fa moo xam ñaar fukk ngeen moo xam téeméer lañ fa ci région bi ak bitim réew ñi ngi lay woo euh, ci dajaloo boobu yàlla dogal na nag am na benn whatsapp boo xamante ni sii ubbi nañ ko benn bi fees na ba beneen bi mi ngi doon bëgg a fees ak ñeneen ñi nga xam ne si jotu noo mën a nekk ci whatsapp bi euh, lim bu takku lan te it wax dëgg yàlla ci ndigalul sëriñ bi lan ko doxe waxtu wu mu ngi koy nemmi di ko laaj képp ku ci bëgg a am lu la leer da ak man Mm, abdoulahatum sëriñ Thierno wala sëñ abdoulahat Diop mi nekk belal wala sëñ abdoulahat jam yi eh, dana la ci leeral bu bu baax a baax a baax eh, sama numéro nag mooy 77 645 65 93. jërëjëf mbokk yi kàddu yaa ngi noonu ñoo ko jot a déggandoo mu bàyyi koo ci Serigne Sidi moom Cheikh Abdou Lahad Mbacke jaar si ci rakkam di Serigne Hamsatu Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad ak Cheikh Mamadou Mourtada waaye Serigne Mountakha moom Serigne ba ci Serigne Abdou Lahad moom Serigne Thierno. Euh, ñuy soññi nag bu baax a baax euh, jëwriñu fédération ba nga xam ne moo nekk ca Italie te lëkkale mbooleem daayira ya fa nekk di sëriñ Abdoulahi Fall euh, président fédération bi sëriñ bi nee na mi ngi koy soññ tey jo di ko jox ndigal mu soññi mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko noo ci raison yi nga xam ne moom la ñuy bëgg a tudd fu mel ne Treviso sëriñ Modou Fall moo fa ne fu mel ne Milan sëriñ Mbay Fall moo fa ne ak sëriñ Sagar Ñang fu mel ne Rimini sëriñ Seexuna Jaw moo fa ne ak sëriñ Daam Fall Palaasolo sëriñ Moustapha Touré ak sëriñ Abdoulahat Dieng euh, ak sëriñ Modou Thiam fu mel ne euh, Portuvico sëriñ Xaadim Mbay moo fa ne fu mel ne Janwa sëriñ Abdoulahat Dieng moo fa ne ak sëriñ euh, fu mel ne Janwa sëriñ Abdoulahat Gajaga moo fa ne fu mel ne toskana sëriñ Ousmane Mbay moo fa ne ak sëriñ Xaadim Kayre fu mel ne sëriñ Saliou Seck nekk Bulsano bu dee ci wàllu jigéen ñi itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññ bu baax tey rafetlu seen i taxawaay tàmbalee ko ci soxna Fat jóob ak soxna Marema soxna soxna Magat Fall ak soxna Ndey Faatu Jenn njiitul xale yi eh, ak soxna may mun Maymuna Fall mi nga xam ne moo nekk porte-parole xale yi sëriñ bi nee daal mbooleem ñii mu lim ñëpp ak ñi mu limut kenn ku ci nekk fa nga ne ca sëñ Abdoul bàyyi la fa mu ngi lay ñaan ngeen lëkkaloo ci benn daayira ak fédération ca waajal bis bii nga xam ne nag mooy bis bi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul waxoon ne ku liggéeyal Serigne Touba ku mën a doon murit yàlla war a fay te kenn naatable wut ne Cheikh Abdoul Ahad moom itam numéro téléphone am di 77 205 83 76 Serigne euh, Mountakha mii nag la Serigne bi wax lépp lu jëm ci Angleterre ak la ko wër mu soññi leen bañ lëkkaloo ci benn fédération nii ñu ko waxee nii lañ ko digale ku ne ci biir réew mi ak bitim réew fu waay mën a nekk rek ñu ngi lay soññi ci nga waajal bisub Cheikh Abdoul Ahad bi waaye nga tënku ci nag ci fédération bi nga xam ne moom lañ def ngir lëkkale njabootu Cheikh Abdoul Ahad lépp ba ndigalul Serigne Abdoul bu dikkee ñu mën koo def ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu